abi propriété tamit dinaa ko wax jox leen ci kilifa tamit taay daa am ku bees ku ko daj taay tay la ko inauguré waaye du ko fi tuddee <laughs> Abdou Khari tamit dafa am ku koy def ay costume rafet donc maa ngi leen doon dagg ah c'est c'est important lii mooy émission bi ah dañuy boole utile ak agréable quoi. après koor gi ba émission bi dina continuer quoi loolu lay. waaw waaw de kilifa si kilifa ak Cheikh Ousmane lay dépendre <laughs> ak Dieuwrine Ndiaye non man sama non man rek waaw loolu la alors mu ngi noonu mais am naa ci benn xam nga fi ñu nekk sànq dafa yaatu boobu fa naree des fa laay fanaan dee. mais am non dañ ko war a wax. mais mais mais tamit bëgg naa ñu bàyyi xel ci benn affaire mooy jàpp ngeen ne le 7 septembre 1960 est-ce que yéen a ngi fàttaliku ne dafa marqué woon benn tournant bu bu historique ah pour Sénégal. ndaxte ci la ñu njëkk a nommé li nga xamante ne ni moom mooy gouvernement bu njëkk. bu Léopold Sédar Senghor waaye nag ka nekkoon ca directive ya moo di Mamadou Dia euh, li tax ma indiwaat ko mooy gouvernement boobu noonu quatorze ministères clés rek la amoon dama koy bamtu sax ministre des affaires étrangères de la justice de l'intérieur ah moom moo chargé woon provisoirement de la défense ministre plan développement coopération technique ministère finance ministère économie rurale ministère éducation nationale fonction publique ak travail ministère santé ak affaire sociales travaux publics également ak habitat urbanisme ministère transport et des télécommunications ministère enseignement technique et formation des cadres ministère jeunesse et sport ministère de l'information de la radiodiffusion et de la presse alors choix bi dafa mel na ni dafa dafa dafa dafa dafa reflété woon benn volonté concentre effort gouvernement yi ah, ci ay accès prioritaire alors lu ñu dundoon ci suñu premier gouvernement yi sànq ba tey maa ngi leen nga naan ñu ngi surtout jëwriñ naan ñu ngi soog am indépendance ak léegi jëwriñ eh, tax ba kilifa tegal ma son bi Cheikh Ousmane ubbil ma brèche comme Abdou Khad alors est-ce que mën nañoo xaarandi lu ni mel actuellement en 2024 ci régime ki nga xamante ne ni moom mooy le président Bassirou Diomaye Faye pardon est-ce que doo revoir cette question. Cheikh Ousmane li ma wax lépp nga ne Fatou. <laughs> dama nekkoon feneen. dama newoon ci sa internet yi moom. <laughs> soo leen toppee doo nekk fii de. Cheikh Ousmane dina ma rey si ngi émission boo neex. dama newoon ci sa internet bi waaw. man ca ba nga ne gouvernement Mamadou Dia. laa gën a xam non sérieux. non dama ne ah 7 euh, septembre 1960. waaw am 14 ministres. ma ne nag ñu dund ba 2024. ñu jàkk jaakaar ne am na air beneen bu bees bu soufflé wu mhm. avec véritablement cinquième président bu nekk ndaw plus jeune président de l'histoire du Sénégal ndax mën nañoo xaarandi euh, ndaxte ñoom volonté bi ñu amoon mooy tënku ci priorité yi ndax mën nañoo xaarandi lu ni mel puisque tey jii annoncé woon nañ ñu donc même su fekkente ni du ay sources officielles ne gouvernement dina génn ñu xaarandi am gouvernement bu toll noonu ci wàllu lim gouvernement bi moom du gaaw xanaa nga dajeeg ay nit ñuy xaru. bu dul loolu moom pour nga am ministre du yomb. Ah, dama ko xam rek gouvernement bi du <laughs> delloo avance day am. <laughs> doo fan la kon tey delloo avancé bëri moo tax ñu del ah, waaw dama jàpp dama jàpp ne ah, loolu xanaa nga dajeeg ñuy xaru. delloo te sama waa ji waxoon na ma ko de. lu ko waral ndax rigueur wala. rigueur ak. exigence de transparence exigence yi Ousmane teg ak pression bi du yomb de. ak zéro zéro zéro zéro privilège zéro privilège yi du yomb de. fii ngay xam ne ñi bëgg réew mi ak ñi bëgg réew mi les patriotes hmm. da nga gis sax xoola ñu bokk ci coalition Diomaye ñu woo leen ñu ne baax na. léegi. <laughs> moo tax. bii du gouver hmm. hmm. euh, ay sama wàll. léegi euh, nag pour être plus sérieux en fait. ku ku ku gañewul sa base doo falu. <laughs> histoire Sénégal dafa nekk di répété wu. Mm-hmm. Mm-hmm. gis nga histoire Macky Sall Sonko continuité wu Senghor Mamadou Diallo. Mm-hmm. Mm. waaw dafa parachever euh, chapitre boobu ci suñu histoire politique. Senghor ak Mamadou Dia moo ñu indil système hyper présidentiel bi ñuy dund. Hmm. bi dualité bi amee crise bi am ci la Senghor réforme récupérer pouvoir yëpp centré ko sur le président de la république du dëgg. Hmm. Hmm. donc conflit Dia Senghor moo ñu jural système bi. li ñuy wax le système. Abdou Diouf ne ci Abdoulaye Wade ne ci Macky Sall Ousmane moo ko rayaat. système bu juddu woon ci crise u Senghor Dia crise u Sonko Macky mhm. moo ko rey pouvoir yi ñu centre woon ci loxo président de la république mhm. gannaaw bi crise bi amee Macky ak Sonko mooy mooy sonné déclin boobu ci la ñuy jëlaatee pouvoir yooyu yëpp décentraliser waat mhm. dafa bëri dafa bëri coïncidence Senghor ak Mamadou Dia. benn binôme à de ce pays mu am dualité Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye benn binôme à de ce pays ma gëm ni du am dualité parce que dafay dafay weddi la ñu waxoon ni ni ñaari kuy yër du ñu bokk mbalka mhm. te Senghor ak Dia dëggaloon ko mhm. Ousmane ak Bassirou da weddi mhm. da gis ni en fait benn en fait xaw ma ndax bàyyi ngeen xel coïncidence yi dafa bëri. Mm-hmm. problème bi ci Senghor Jalla commencé. Mm-hmm. problème bi ci Sonko Diomaye lay réglé yow. Mm-hmm. Macky Sall ak euh, Senghor ak Dia ñoo am crise Senghor récupéré pouvoir yi sénégalais yi nangu dund ci système boobu Ousmane Sonko ak Macky Sall ñoo am crise sénégalais yi refusé continuer di vivre ci système boobu. crise bële moo sonné le début de l'hyperprésidentiable crise bi moo sonné la fin benn mhm. contraste ngay gis ci ñaari situation yi quoi comprendre bii moo ñu dugal ci système bi bii moo ñu génne ci système bi parce que mhm. avant crise boobu système bi new fi woon ja géré bien ce pays crise mhm. bi am ñu dugal ñu ci système bi crise bi am génne ñu ci système bi dégg naa la donc dafa bëri coïncidence kon bu mu la bett ñu reprendre même nombre de ministres bi que 62 parce que Ousmane Sonko euh, les gens de Pastef s'inspirent beaucoup du président Mamadou Dia la preuve seen école du parti Kër Maodo lañ ko tuddee. Hmm. Ousmane Sonko <coughs> ci histoire Mamadou Dia da ngay xam ne daf ci jël ci positif. ci saxante it kazaalika parce que ku ci nekk am nga ay erreur nag yoo def ci sa parcours. mënul ñàkk sax c'est humain l'erreur la perfection n'est pas de ce monde quand même jaa fait mais mais mën nañ am xam nga ji bi euh, référence bi nga jël Cheikh Ousmane mhm. euh, ci gouvernement bu 1960 bi xam nga jamono boobu le Sénégal dafa doon nekk dans un début de construction mhm. ba taxoon ñu am certaines dénominations yi ci yenn ministères yi mhm. tey euh, gouvernement boobu ngay wax mu amoon 14 ministères ministère de de de de l'intérieur euh, chargé provisoirement de la défense yu genre dénomination yooyu. Mm. mais tey ak euh, Sénégal fi mu toll. peut-être mën nañu am benn euh, nombre de ministère boo xam ne c'est réduit. Mm. mais il y des départements à tenir en compte. Mm. Euh, boo xam ne en fait dafay accompagner les nouveautés ñi nga xam ne moo am ci Sénégal. yu ci demee ni. le ministère de l'énergie. Tout à fait. Il y a la découverte du pétrole. il y a il y a il y mhm. et cetera et cetera boobu am boo xoolee amul woon ci ministre ci euh, gouvernement boobu ngay gis. Mhm. bi bu 1960 bi. Mhm. donc tey mën nañ am bu bu bu bu réduit maa ngi koy wax si njëlbeenu émission bi mën nañ am bu réduit yoo xam ne dañuy compressé euh, yenn département yoo xam ne pratiquement ci même orientation yi la ñuy dem. mais que ci biir euh, ñu. créer des des des des de des direction mhm. yoo xam ne dinañu permettre euh, en fait ci dynamique austérité bi euh, njiitu réew mi annoncé mais ñu dem ci donc day am benn ministère boo xam ne dafay coiffer un ensemble de direction yoo xam ne ñoom dañuy dem ci même orientation yi. Mmh. donc loolu mën na nekk benn benn benn méthode. mais également euh, mën nañu fexe ba euh, effectivement privilège yi nga xam ne wax nañu ko parce que privilège yi moom mooy coûter cher au au au trésor au contribuable mm. au contribuable parce que euh, am na am na ci yenn xeetu privilège dama nga à l'Assemblée nationale Assemblée nationale dañ lay jox privilège jox la jox la ba jox la loo soxlawul waaw donc loolu dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a dañ ko war a arrêter mm. buñ ko arrêter da ngay gis ne systématiquement dafay am benn incidence positive mais ci quotidien wu sénégalais loolu ñuy dajale en terme de de d'économie jéem a euh, def des des cures d'austérité liñ ciy dajale si xaalis mais mën na permettre effectivement ñu régler euh, très rapidement la question de de de de de la de la vie chère des denrées de la de la cherté de denrées de première nécessité parce que moment bii nii ni ñu ko mën a régler sacrifice rek la gouver le état mën a def te nee nañu trésor ñu on a on a des des des euh, des euh, tensions de trésorerie ça veut dire que koppar yi waroon nekk ci trésor ba ñu mën a def yenn politique yi yu yu urgente yi bon peut-être du disponible donc lii nii ñu permettre en fait ñu am des fonds yoo xam ne dinañu permettre très rapidement ñu apaiser ñu ñu ñu ñu ñu kii ñu ñu daal di defal sénégalais ci seen métit d'accord am au moins loo xam ne nañ ko nañ ko régler très rapidement euh, de la vie faire des subventions bu ko defee ñu souffler le temps que ñuy am yeneen piste yoo xam ne wala yeneen solutions yoo xam ne nañ ko apporter alors par rapport aux, urgences le plus c'est ça c'est ça ça fait partie des des des, des priorités Euh, non Basiru moom xam na mbay. non ba pare man c'est du vécu dama ko dund. ça fait cinq ans bi ma commencé bay. Mhm. yow baykat nga. yee dama daan def euh, sept hectares laa daan def mais sept hectares yi gerte laa doon def arachide. Mhm. su ma financé par exemple cinq cent mille ou huit cent mille. Mhm. su ma defee sama récolte ba pare au bout de trois mois dinaa am un million huit cent. maanaam dinaa am bénéfice su un million boo xamante ni ci li ma am ci gerte ak ci ngooñ. sur trois mois. sur trois mois dinaa def bénéfice su un million. tuutiwul wala non non non dire xam nga tey jii tuutiwul. parce que nit jaay na fi wala nit nekk na ci lenn wala nit ñu ngi koy liggéeyloo ñu ngi koy liggéeyloo. trois cent mille par mois di cent mille par mois. Ah, donc trois mois. trois cent mille la am. <laughs> cest foofu lan laa bëgg a wax. ndég parce que man dama def lu bon huit cent mille yi normalement su fekkonte ni am naa mbay mu jaar yoon. Mhm. mën naa gagner plus. Ouais, quand même je peux gagner plus. Mhm. mais jàppal ni ba pare sur trois hectares. ba pare man. ba pare man dama koy dama ko doon def pour appuyer les villageois. Mhm. parce que après xaalis boobu presque mën naa ni lu ci bari duma ko laal. ngooñ mi kese laay soxla pour suma xar yi mais gerte gi sax dama ku leen koy may ne leen pour jëndalee leen ko. seen doom yi bu école di ubbi ngeen jëndale leen ko kaye maa ngi jéggalu sax ki li ma toog di ko wax. léegi naa yaroon jaay Ousmane Sonko xaaral. si maa koy jaay chaque année maa koy jaay xaaral <laughs> mais day ñëw di waxaale rek. <laughs> si ay xewu deux cent. du fay prix Sonko. man ay deux cent cinquante mille. <laughs> mais Sonko amul moom moom de. kon day waxaale baa du muy waxaale ci yow. Basiru Basiru bu fa ñëwee di waxaale ko Bas jaayu <laughs> ma <laughs> la ma la président jaayu yi di. Ah. soogee nag yaa dégg. Uh-huh. donc agriculture. xam nga euh, Abdou Khadir par exemple lii nii. c'est automatiquement et très rapidement résoudre le problème de l'emploi des jeunes. parce que euh, dootul nekk non seulement dootul nekk une agriculture boo xamante ni tu vas fournir beaucoup d'efforts parce que tey jii nii maa ngi dégg ci ci discours du président. Mm-hmm. mu ne accompagner l'agriculture ba nga xamante ni les vrais paysans. ñooy jot ci jumtukaay yi ñuy bayee. Mhm. intermédiaire du ci amati. intermédiaire dootu ci amati si loolu mu ngi wax ni que ni maanaam dootuñ ko jox les cols blancs. Mhm. te ñëpp xam nañ ñan mooy les cols tey jii nii boo yi nekk fii yëpp di ambulant dañoo jaay seen suuf wala dañoo gedd seen suuf ñëw fii di def ambulant. Mhm. ñi nga xamante ni dañuy sàcc yenn sàcc yu ñàkk xorom yi ñooñu seen condamnation dafa war a doon ñu leen di bayloo ceeb bi Sénégal di dundoo dundee prison nekk une exception. un violeur un pédophile un assassin yooyu crime crime crime crime crime moo lay yóbbu kii nii tey euh, euh, gis nga agriculture mooy li nga xamante ni moo mën a révolutionner euh, l'emploi des jeunes le hmm. développement d'un pays te loolu autosuffisance alimentaire États-Unis alimentaire te te problème bi mooy ñun dañu am suuf ba pare dañu am suuf bu fertile am ndox am ndox. am soleil douze mois sur am soleil douze mois sur douze euh. mois. léegi Abdou Khadre. bu ñu accompagner agriculture bi au lieu que may bay trois mois man damay bay douze mois sur douze. su ma amee forage di arrosé. damay bay douze mois sur douze. donc bu fekkente ni le Sénégal on arrive à cultiver douze mois sur douze mais sa waay suñu problème dafay réglé wu suuf soo xamante ni lépp luy xeetu lekk. meññeef mën nañ ko fi bay. sa ñun ñun ñun gis nga. Euh, wax ji wax ji mooy on avait on des des, euh, des nationalités mm mais on n'avait pas des patriotes mm-hmm. mais cette fois-ci mm-hmm. Il faut qu'on se transforme à des patriotes. ñu bàyyi je suis nationalité sénégalaise mu yem ci carte d'identité yem ci ay wax yem ci langue beeg yooyu. mais je suis un patriote. et je vais faire ce qu'on appelle le don de soi. dinaa fexe ba nga xamante ni tey jii nii damay concurrencer. parce que man euh, je di que ni gis nga ñi naan dañoo dem d'accord ils avaient perdu de l'espoir moo tax ñu dem mhm. mais tey ñun suñ fekkente ni préparé nañ suñu doom yi préparé nañ suñu rakk yi suñ ñëwee gis fi un Sénégal boo xamante ni du ñu envier l'espagnol du ñu envier le français du ñu envier et cetera et cetera mais ils n'auront pas besoin d'aller là-bas suñu fa demee au contraire c'est pour des vacances Mhm. bay nañ wala nekk nañ ci seen mbir pendant onze mois pendant onze mois buñ ci nekkee jël vacance su un mois dañuy ils vont se retrouver avec beaucoup d'argent ça va permettre de se payer des vacances rétablir surtout la dignité humaine ba nga xam ni éboueur bi ci boppam dina am les mêmes possibilités que le DG bi nga xamante ni dafa nekk ci X entreprise mhm. te loolu yomb na wala euh, euh, c'est-à-dire boo koy wax nii. man dama xam lu may wax quoi. Mm-hmm. su fekkente ni teg nañ rigueur bi ñu war a teg. Mm-hmm. parce que nous avons tout ah. nous avons tout te incha allah je promets aux Sénégalais que des révélations dinañu am fii. te incha bi rabbi dinañu rëbb ba nga xamante ni dinañu sécuriser lii am amu Sénégal maanaam ci lépp lu ñuy woowee ressource. dëgg la. mënuloo nekk ci dëkk boo xamante ni tu as trois entreprises yuy defar ciment ciment amul benn dépense ndax carrière bi ñu koy defaree fii la. Mhm. te li ñu am ci carrière usines yooyu li ñu am ci carrière utiliser guñ sax un cinquième bi. d'accord te fii la ci dëkk bi te ces usines là man dama dépasser ay fay impôt mais war nañ dem ba Sénégal am ci ay action ëppale ci ay action no mu am loolu yëpp ci négociation sa propre sa propre cimenterie sa propre cimenterie looloo gën su boobaa ñële euh, le ciment dina wàññiku d'accord mais yow ki nga xamante ni tey jii nii ba pare euh, am na beneen quatrième buy ñëw te boobu tamit marocain yi lañ ko jox effectivement en tout cas yëpp daal sénégalais yi man dama leen di rassurer nañ dalal seen xel mhm. lépp lu ñu sàccoon dinañ fexe récupérer ko lépp loo xamante ni c'était mal négocié dinañ fexe ba négocier waat ko mu nekk une négociation gagnant gagnant mhm. comme ni ko président de la république waxee dàquñu kenn waaye tamit nag sama bopp ma la gënal du bañ naa la macha allah être égoïste moom le Sénégal d'abord mhm. l'Afrique d'abord c'est ça mu ngi noonu merci beaucoup am na solo kilifa Diori Ndiassé nous en sommes à la fin de l'émission baal ma rek looy tàggatooyee eh? ah mais sant yàlla rek. man de samay tàggatu léegi dafa brusque de. suba du 4 avril la non. waaw incha allah. yaa ngi ci 4 avril sax. Hmm? yaa ngi ci sax. ñu ngi si de ah. Hmm. donc prise d'armes bi suba euh, saa waay dégg naa fa la la koy defee pale la koy defee. waaw. pale la wala dañ koy génne place. non vraiment pale la biir pale la nu mu gën a soobree gën a gën a gën a gën a làqatoo. Hmm. noonu la ko waxee ci gàttal. Euh, gouvernement bi matagul ba léegi. waddagul de. ah. Mhm. ah kon jàmm xewal rek. xewal ak jàmm kay hmm? jaajëf. ba suba ak jàmm incha allah su neexee borom bi jaajëf Dior Ndiaye. Abdou Khadre bonjour. suba ak jàmm. waaw incha allah looy tàggatoo. Euh, rafetlu jotaay bi rek ñu waxoon Cheikh Ousmane yow tamit da nga jé yow est-ce di ko nëbb. Hmm. man mii nii. ci rafet de. bon maa ngi sant de. ah man kay wax ma maa ngi julli di jaamu yàlla di naafila. alhamdulilah. <laughs> di a wala leeri la jaajëfal mbokk internet yi. <laughs> te mu ne ma a jàpp balaa may ñëw <laughs> am na am solo la boobu la a lu am solo la Cheikh Ousmane. a na doxantoo njàpp. oui man du ma génn sama kër mukk taw ma njàpp. lu am solo la lu am am solo la. du ma génn sama kër mukk taw ma njàpp. c'est la meilleure protection. lan mooy bienfait na bëri na ci lu mu lay muusal. Mm-hmm. bëri na de bëri musiba yoo xam ne doo dajeeg moom bëri gaaf yi comme ay. feebar yi épidémie yi nii. Mhm. bëri na yoo xam ne jàpp dala ciy musal. macha allah jàpp gàllaat la. kon ñoo ko dégg ma jox la benn exemple. jox ñu bene xam nga benn dañ gëm vodou. Mhm. am na ci kër yoo xam ne boo fa ñëwee nekk jullit du la luwe. Mhm. ndax njàpp gi ngay jàpp day toj ñoom seen gàllaaj yi ñuy def ci kër gi. Mm-hmm. Ah, kon xam nga jàpp kon gàllaaj jàpp lu baax la kon nag yéen ñi koy suivre ah, ah, ku ci nekk na ngay boo nee rek saa sooy génn foo taxaw foo mën di nekk ah ngay ngay ànd ak njàpp lu am solo la Abdou. jaajëf waaw loolu la loolu leen di eh, ñaax rek ñi nga xam ne aussi. si religion chrétienne la ñu nekk am na ay prière yu ñuy def balaa ñuy génn Sénégal dafa yaatu njaboot gi dafa yaatu daa yaatu te la constitution euh, consacre la liberté de culte ku ci ne rek fa nga bokk yàlla sàmm la ku nekk li nga gëm rek exactement doxal loolu c'est ça jaajëfal ñëpp merci ah, beaucoup del jàpp chaque jour yow su fekkee da ngay jàpp di leer moom del jàpp chaque jour ah, jaajëf maa ngi bar moo xew de <laughs> maa ngi ciy ngooy jaajëf suma gars yi ak seen bar bu yi jaajëf <laughs> kilifa kilifa jaajëf jàmm xewal waaw Julio l'officiel Julio l'officiel nee na moom il est gardien de 7 heures du matin à 19 à 19 heures ah, faction yi noonu lay demee ñu may fay ñu koy fay